ci dëkk bi ak lu mënti xew fësal gu ñu fësal lim gi nga xam ne kat ci candidature takku na réewum Sénégal ba tax na ñu bëri bal daanaka sax réaction yi ñoom moom daanaka sax neexu leen waaye dafa mel ni kat ci dégg na ñi nga xam ne ñooy jàppal tànk défenseurs yi nga xam ne kat duñu sonn mukk liggéey bi nga xam ne moo daal delluwaat ci bi nga xam ne kat mooy wàllum liggéey président waaye gis nañ ne kat dafa ni lim bi jégg na waaye dafa mel ni kat day nar a fontoo ñi ndax lu tolloog ñaar téeméer ak juróom fukk yoo nga xam ne dafa mel ni ñoom ñëpp kat ay candidat lañu naam waaye lii nag moom dafa dem sax ba ñàkkal fayda liggéey président présidentielle ak institution maanaam keneen yi nga xam ne ñoo koy suuxat ci dëkk bii ki nga xam nag moo fi nekkoon njiitu réew di Léopold Sédar Senghor di poète moom xam na ne kat liggéey bi nga xam ne moo ñeel liggéey njiitu réew ba waaye ñun deful nànk rek dana nekk akub danger bu nga xam ne day tax ñu daal di yaa ah, ñàkkal fay liggéey boobee ak keneen nga xam ñoo ko gën suuxat naam waaye ñu gis ne ci responsabilité ku ci nekk la liggéey ngir loolee kat mën a ñoŋ waaye naam sax dañuy mën ni xool ndax ñu bëri kat ñu nga yuuxu wàllu ne kat lii nag moom war nañ ci indi saafara waaye dafa mel ni kat dëkk yi ci boppam sax ñooy dul soppeeku waa sakantu balaa nit ñi kon ñi nga xam ñoo fi nekkoon ay président fondateur ñoom ñu bëree bëri ci liggéey nga xam ne kat mooy wàllum liggéey présidence jot nañ cee indi sax ak soppeeku ku ci mel ni kat njiitu réew mi Afrique du Sud di Nelson Mandela moom nekk exemple ci Afrique yëpp waaye tam ci àdduna bi yëpp ak li nga xam ne tam mooy liggéey bu rafet bi nga xam am na ko naam sax nekk ne exemple waaye Sénégal itam ak lu mënte xew war nañu mën a inspiré ci modèle bii nga xam ne kat mooy modèle républicain bii ak ni nga xam ne kat moom la daal di wund kon war nañoo tabax li nga xam ne wàllum déggoo daal di weccoo xalaat daal di baalante respecté li nga xam ne kat mooy suñu wuute waaye itam liggéey njuuti réew nekk na métti bu nga xam ne dafa nekk tamit source d'inspiration ci ku ci nekk daal ci banqaas boo mën a jël ci dëkk bi ak lu mënti xew